tournée bi ñuy euh, def tey euh, dafa bokk ci appel bi président de la république lancé ak monsieur le premier ministre lancé fan euh, pour nous organiser benn bés pour nettoyer pour set setal délai bi gàttoon na trop population bi dégg nañ bu message bi dégg nañ ko ndax li ñu gis ci terrain bi euh, traduire na euh, firndel na population yi nuñ ko déggee ak ni ñu wàccee ci terrain bi pour nettoyer fépp fu ñu jaar ñëpp genn amul góor amul jigéen amul ndaw amul mag ñëpp wàcc ci terrain bi fépp foo jaar rek yaa ngi ci terrain bi kon message bi dégg nañ ko bu baax a baax. xam nga état bi état bi mënul def yëpp euh, waaye état bi aussi lépp lo xamanteni war na ko dina ko def euh, ndax li ñu gis tey euh, dal na xel euh, terewul ñi nga xamanteni ay bonne volonté lañu mën nañ ko seen xol may na leen ko seen moyen may na leen ko ñu jàppale population yi ci ni ñu traduire ñu di liggéey ci terrain bi kon lii li ñuy rafetlu bu baax li ñuy li ñuy rafetlu la li ñuy saluer la monsieur Kébé geste bu mu def tey geste bu mag la. Euh, war na am ay exemple ay exemple ay exemple yu mel ni monsieur Kébé ci message yu président de la république dafa ne tey lancement la mais liñ ci liñ ciy santu mooy weer bu ne ñu jël benn fan jagle ko jagle ko euh, nettoyage cette setal kon loolu euh, fan yi ñu dem weer yi ñuy dem kep kuy population sénégalaise war nga japp ne weer bi ñew ak wereen weer war nañu mëna organiser wu gëna organiser waat pour euh, gëna a euh, acte citoyenneté ak nettoyer cet bi